xam ngeen ni fës bi moom bi ñu bi mu tàmbalee yàgg na euh, chaque année dañ koy def ren maanaam 300 euh, millions la ñu distribué ci suñu université yi naam loolu doyul am na ñoo xam ne bëgg nañu am amuñu wante gëm nañ ni en tout cas war na mën a dimbali recherche bi fii ci Sénégal xam ngeen ni président Macky Sall bu mu ñëwee ba léegi bi mu organiser concertation nationale sur l'enseignement supérieur dafa ne maanaam éducation maanaam tàgg suñu xalé yi mom bokk na ci limu gëna soxol li gëna soxol plan Sénégal émergent manam le capital humain lool motax nak nag euh, manam def na université yu bees bi moy exemple université Amadou Matar Mbow université machallah rafet na taruna té te gëm nañ ni dina bokk ci université yo xamné ne at yi di ñëw dina manam gëna ki suñu carte universitaire euh, def na aussi effort yu mag jégleel wa recherche 52 milliards ci matériel réception nañ ko yagul fi fi ci Diamniadio té yok na ci aussi manam 17 milliards pour ñu yokkat matériel bobu donc euh, président Macky Sall li defal université sénégalaise ñep gis nañ ko ci walu tabax ci walu yok moyens yi ci walu gunge enseignants yi chercheurs travailleurs ci walu recherche fi ci Sénégal te moom sax dafa jël deux milliards de francs CFA jëbbal ko waa CAMES pour ñoom tamit ñu mën a chaque année des prix pour gunge ay chercheurs muy cent millions njeexital bi moom euh, ma xam ngeen ne recherche dafa laaj moins dafa am ñoo xam ne dañuy dem defi ay prospection wala ñu war a jënd ay matériel donc euh, lu recherche dafa laaj moins donc ñi ñi ñi ñi yi nga xam ne dañuy def seen programme dafa am liñ ci bëgg def loolu moo tax ñu laaj xaalis boobu laaj ñu ko juste pour euh, ñu laaj ko donc njeexital bi mooy xaalis bi dimbali leen pour que seen jumtuwaay ñu am ko ñu mu gën a gaawee ñu mën a liggéey am résultat léegi projet yi nag bëri woon na jeune ne me rappelle pas du nombre mais cinquante cinquante huit projets lañ déposé woon seize lañu ñoo jot am financement parce que sélection bi nag dafa xaw a maanaam ñi euh, saytu mbir yi dañuy xool vraiment gis ne projet bi non seulement war na mën a ant ci résultat yu baax mais résultat yi war nañu mën a amal njëriñ Sénégal